sëriñ bi ñu ngi nuyoo tey indi nuyoowu président de la république son excellence Macky Sall euh, sëriñ bi yoonu tey wi président daf ñu yebal ni ñu bu ñu ñëwee nañ ko jottali sa ziyaara jottali ko sa nuyoo massawu la ci li nga xamante ni jot na fi xew fan yi ñu génn mu nekk lu metti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 njaboot gi rek mooy yitteem. njaboot gi rek mooy yitteem. te mooy bindeef yi. te mooy mbindeef yi. ak taalibe yi. ak taalibe yi. ndax xam na ne ñi fi nekk. ndax xam na ne ñi fi nekk. yaakaar rek leen fi indi. yaakaar rek moo leen fi indi. ni ko Serigne Touba waxe woon. ni ko Serigne Touba waxe woon. ne Touba ku fa sam ne Touba ku fa sam xel indiwut. saw xel fi indi. saw xel dina la fi indi. kon loolu rek fi dajale taalibe yi. kon loolu rek moo fi dajale taalibe yi. muy yaakaar. muy yaakaar. kon sëriñ bi nee na. kon Serigne bi nee na.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 ci li ngeen bëgg a jëmee ci dëkk bi xalaat yi ngeen ci am ak xalaat yi ngeen ci am mi ngi ñaan suñu borom mottali ko mi ngi ñaan suñu borom mottali ko ba ñi nga xam ne ñoo ci loru woon ñëpp ba ba ñi nga xam ne ñoo ci loru woon ñëpp la ci diisoon ci ñoom lépp oyofaat la ci diisoon ci ñoom yëpp oyofaat ci ñoom ñaan ci barkeb Serigne Touba di ñaan ci barkeb Serigne Touba lu mel ni géej fi lu mel nii géej fi bañ fee amati bañ fee amati asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu